ak mbokk yi ak taalibe yëpp dundal bis bi ba def waxtaan ba pare tey jii ñuy ñëw fii ci kanamu sunu kilifa di sunu waajur sëriñ Baye sëriñ Bousso Bousso di xalifa sëriñ Bousso ak mboolem njaboot gi yëpp nag di ko ziar di ko masawu coono ca di ko ndokkeel ca di ko ñaanalit sëriñ bi mboolem mi ñu ngi lay ñëw di la ziar bu baax a baax ci bis bu màgg bii nga xam ne mooy sa bisu maam yu tàdd yooyu nga ñëw taxaw taxawaay bu rafet ba joxe ci ndigal bañ tàmbali ko ci bisimilah rahmaani rahim yàlla dogal ñu àggale ko ci alhamdulilahi rabbil alamin kon sëriñ bi ñu ngi lay ziyaare ci di la mastawu coono bu baax a baax xam nañ ne yéene ak yëg-yëg ak bëgg njaboot gi ak ñeewantu leen rek moo tax nga jéego sa jéego yi yendu ci yendu bi tey ak coono yu bëri yi ñu ci àndal yëpp kon nag mbooloo mi ñu ngi la ci ziyaare ci di la mastawu xam nañ ne ñi ngi koy sonal jarañu ko te di la ñaanal suñ borom mu dolli wér gi dolli kattan gi ba naal yi nga xam ne naal nga ko ngir liggéeyal ko sunu maam yooyu yàlla bàyyi la fi bañ àggal ko jàmm mbooloo mi it ñu ngi sant ñëpp waaye di la wax ne liggéey yi ñu jëm ci kanam muy jéem a defal daara yi sëriñ Bousso bi comme ni ñu ko waxee ak kër sëriñ Bousso bi ak daara ji incha allahu rabbi buñ jugee ci màggal gi buñ noppaloor dañ ci dal jublu ci sàkku say ñaan ci jubloo it incha allah danañ ko yaatal ba mu ci mbooloom yëpp àgg ci askan yëpp àgg ci jullit yëpp ndax xam nañ ne sëriñ Bousso bi ñëpp am ci moom yéene kon daal sëriñ bi ñu lay siyaare te di la ñaanal bu baax baax suñ borom yàgg la fi ànd ak wér te di la masawu coono yi xëy na lii mbooloo waxoon ñu wax ko waaye gudd na waaye nag comme dafa guddi ca it eh, coono yi bëri na jotaay bi yàgg na ak cant ak ñaan ñaan yàlla bàyyi def at yu bëree bëree bëri ba naa liñ am bu déwee na ñu mën koo defee ca pàkk bi nga xam ne am na njort ne mooy pàkk bi nga xam ne sëñ Tuubaa moom la génne woon ba muy sañ ci Daaru jox sëñ bu soobee yàlla def ñu ñu bu déwénee ñu defe màggal gi foofu ni ko mbooloo mi naale ca it incha allah rabbi fas yéene nañ ko ca boo ci ñaanee xam nañ dañ nangu boo ko dogoo ci barke bis bii ci barke maam yu tedd yu ñu ne jàpp nañ ne loolu dana am incha allah loolu mooy sàkkutee fi mbooloo mi parce que barke turandoo sëriñ Bousso bi incha allah rabbi danañ ci jublu jéem cee dox jéem cee jëm di soññaale mbokk yëpp nag xam ne loolu mooy yittey njaboot gi mooy yittey askan wi te loolu ci dañ dox jëm képp koo xam ne nii jàpp na ne man naa xeeñtu mbirum sëriñ Tuubaa bu jëfalee sëriñ Bousso bi dana xam ne daje na ak sëriñ Tuubaa ak njabootu sëriñ Saa gépp ak barabu suñu saa buso bee nekk naawel ak mboolem naal yi nga xam ne am nañ ko rek incha allah rabbi nga ñaanal ci suñ ñu songu ci ci am ci ndam balaa ñoo toogaat fii ren déwén yàlla bàyyi la fi nga ànd ñu ànd ko yow ca kenn ba ñàkk ca nga ñaanal mbooloo mi sëñ lañ ak i mag yoo xam ne ñëpp am yéene liggéey sëñ buso bi nga ñaanal leen yàlla dafa leen xéewal dafa leen kattan ba yéene ñu am ngir liggéey sëñ buso bi ñu def ko ak sëñ ñu kattan ba nga xam ne lépp luñ yéene ci xol bi am ko dooley war wërsëgu àdduna man koo maye bañ man koo jëf-jëf ju rëy rëy rëy bam sotti celet ci sa kanam so seddu xolu murid yëpp seddu xolu taalib yëpp kon ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di la ñaanal bu borom mu gën la fee bàyyi ca ba ànd njaboot gi ñëpp ñëpp sa njaboot yëpp nga xam ne yaa leen jilif ñu njaboot xalifa sëriñ Bousso bi ak sëriñ Saa ñoom ñëpp ak njaboot taxaw nañ ci bis bi taxawaay boo xam ni sëñ bi am na fu mu tàmbali waaye amul fu mu jam nga ñaanal leen ñoom ñëpp ñu yàgg sa ginnaaw te yàgg yàgg ko ànd ak yow te yàgg ko fekke asalaamaaleykum wa rahmatullah waaye nee na mi ngi sant mboolem mbokki fi yëpp nañ ko waxee woon ba rek sant ñëpp njaboot gi góor ak jigéen mag ak ndaw yëg na ni day teral nañu ko sagal nañu ko yëg nañu ko baax a baax itam ndax lii ñuy def taxaw jiital ko ci taxaw ci ni ñu ci taxawee ba lépp lu mu lu mu fekki wut dara manqué wut dara sooxewut kon loolu kon xoolal seen na jugu yi ndax moom ma nga fële ca ba nga jegewu fi waaye teewut mel na ni mu ngi seen mi suñ biir lépp loo xam ne lii yëngal yëngal nañu ko rek moom bu ca xo bu ko yéenee rek lépp ngeen def ko nañ ko bëggee waa def na kawe yéeneem ku leen xorom sedd na guy yi mi ngi ñaanal ñëpp di nga ñaan lépp yàlla na ko yàlla nangu barke sëñ Tuuba ku fi ay saafara uh, uh, jàngoro yàlla na ko yàlla saafara ku fi indi yitte yàlla na ko yàlla faj barke sëriñ bi ne ndax xorom sedd na guy yi xol bu sedd nag mënta weesu xol bu sedd sant mënta weesu sant ñaan mënta weesu ñaan mi nga sant gërëm te la ñaan bu baax barke sëñ Tuuba kon ñëpp taaral Amin.